bi ñu so suñu opération ba pare jàpp nañu lu toll ak ñetti téeméeri nit ci ñooñu amna na lu tollook euh, ñeenti téeméeri góor amna na lu tollook euh, ñetti téeméeri jigéen ak euh, juróom benn fuk ay xale donc ci ñooñu am na benn sëriñu daara boo dañ ko gis mom ay xale rek la yor xale yoo xam ne dañuy génn di yalwaani d'ailleurs ñun bi ñuy ñëw dañ la fekk ñuy waaj ñuy préparer pour dem di yalwaani donc ci aussi Euh, gis nañ ci ñoo xam dañ leen fekk ak ay paaka ak ay jaasi ak ay cisaay yi nga xam pour pour défoncer ay portes et tout ça euh fekk nañ fi aussi ben li ñuy wax début de boisson clandestin moy fi nga xam dañuy dem di fa nan sangara tey ñëpp xam nañu nan sangara pour nga am euh bërepp bo ne dañ fay jaay sangara il faut nga am autorisation autorité administrative té loolu amuñu ko gis nañ fi aussi euh, benn bërëb boo xam ne dañ fay euh, reconditionner ay produits dangereux muy acide du diluant du cyanure di ko jël ci ay barigo di ko def ci ay bouteilles ba pare avec des étiquettes industrielles. bon mënuñu wax ne ñëpp ay Samba Boy lañ mais ñi ci ëpp ay Samba Boy lañ waaw li tax ñu wax né ñu ay Samba Boy lañ déjà condition yi ñu fi dëkk yi ñuy dëkk fi ci biir euh du yoon dafa na dugg ngeen ci biir gis ngeen ko té ensuite euh, problème hygiène sax day poser parce que fi ñu dëkk fa lañuy toggé fa lañuy ñuy bu soxla soxlaa seen bopp aussi foofu lañ koy defee bon de façon ñun ñun mom suñu ñoom suñu sol ñun duñ sol buñ fi desee euh gaay buñ fi nekké ñun chaque fois c'est des opérations coup de poing bu ñew duñ ko yek dañuy xey rek dal seen kaw. yëral yëral way yëral yëral xam nañu jotal yi yëral.